asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi nu fas yéenaa ànd ci nawaafil yi ñuy jukkee ci téere Sëriñ bu Mbàkke bi mu tuddee qurratil ayn nu toll ci guddik fukkeel ak ñeent Sëriñ Suhaybu Mbàkke radiyallahu anhu dafa wax ne guddik fukkeel ga ak ñeent ku ci julli juróom ñetti raka bu ci ne fatiha ak idha jaa juróom ñaar yoon guddik fukkeel ga ak ñeent ku ci julli juróom ñetti raka bu ci ne fatiha ak idha jaa nasrullahi juróom ñaar yoon mel na ni ko saraxe junniy dinaar goreel junniy jaam lele junni ñu xiif te dees na nangu ak julleem ak kooram te dees na ko musal ci ayu àdduna ak alaaxira wépp te bu bés penc baa dana bokk ci ñi nga xam ne duñu jàq duñu tiit te dees na ko ràmmuloo ci ñi waroon a dem sawara lu ko soob mu yóbbu leen àjjana te deesu leen xisaab wassalaamu aleykum ورحمه الله وبركاته